alors très bien honorable euh, wax nañ ko sànq ci présentation bi mooy euh, euh, li xew démb ci assemblée nationale ci session deuxième session extraordinaire boobu ñu waroon voter ab projet de loi ñeel la suppression di haut conseil des collectivités territoriales ak li di conseil économique social et environnemental fi mu mujjee xam nañ ko rejeté nañ ko par la majorité 83 voix contre l'adoption donc de ce projet de loi la contre 80 alors ban jàngat nga ci am mbégteel ou xaaroon nga décision bi nu mel de la part des députés de la euh, majorité. bon euh, am naa tuuti peut-être que mbégteel. Mhm. parce que man jàppoon naa ni peut-être que duñ fa agg parce que en réalité euh, ku soxla institution bi mooy président de la république. Mhm. ñu fàttali ni kii. au conseil des collectivité territoriales ak conseil économique social et environnemental amuñu pouvoir de décision mais ñoom ay conseil la ñuy joxe. Mm-hmm. ay avis la ñuy joxe. boo déggee loolu mooy nit ki bu lay xelal bu la neexee lu mu la wax mën nga ko jëfandikoo comme aussi boo seetee ni ki loolu doy la nga bañ ko jëfandikoo donc c'est facultatif. ñoom du ñu dogal dara mais dañuy joxe ay xalaat. ay conseil ay conseil jëmale ko ci président de la république donc président de la république moo toog ci wàllu politikam li mu bëgg euh, li mu diggee askan Sénégal mu jàpp ne mën na il peut s'en passer vraiment du de ces deux institutions mu ne moom su excès pouvoir. dans le cadre de son programme, la coalition Diomaye Président. Mhm. Et bien avant ça même ci wàllu Yewwi Askan Wi dañu amoon un programme minimal commun bépp candidat bu bokkoon ci Yewwi Askan Wi bu falwoo nest dina tas ñaar institution yooyu Diomaye ci logique boobu la nekk bu mu ñëwee nekk candidat en euh, mhm. de la coalition Diomaye Président ouais. <coughs> li mu diggee askan bi mooy su ma faloo ñaari institution yooyu n'est-ce pas dama koy tas li tax mu war ko tas parce que gis na ni liggéey bi ñu war a def yeneen institution mu mel ni assemblée nationale ñu ngi def pàcc yu bëri ci wàllu liggéey boobu. Mm, ñoo lu ci mel ni nan par exemple. non ñoom ay parce que wax nga ko sànq. Mhm. Euh, euh, ñi fare ca au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental ay avis la ñuy joxe c' est des assemblées consultatives. mais c' est oui, pas la oui. que l' nationale. assemblée quand même un kii moo tax le président. Mhm. bëgg yem ci assemblée nationale ak peut-être euh, yeneen organe yoo xamante ne mais assemblée conseil wul président quand même au nom de la séparation des pouvoirs. assemblée conseil wul président c' est c' est tu ne peux pas on ne peut pas le au moins am na liggéey boo xamante ne ci wàllu boo jëlee ci wàllu collectivité territoriale mhm. le ministère des collectivités territoriales passe à l'Assemblée nationale bu ñëwee n'est-ce pas day jàkkaarloo ak euh, comment dirais-je député yi mhm. député yi laaj ko lu dem ci côté boobu dañ koy poser ay questions n'est-ce pas mu àndi ci ay leeral mhm. ñu wax ko ni ki ñun nii lañ ko gisee boo ko defee nii nii nii peut-être moo gën ci askan bi Mhm. te député yi ñoom ñooy càmbar ci budget yi de tous les ministres donc ministre des collectivités territoriales mhm. bu ñëwee assemblée nationale présenter son projet de budget député yi dañ koy laaj budget bi naka la koy orienté mhm. député yi aussi apporter ay orientation naan ñun Euh, dañu bëgg par exemple budget bi nii ngeen yokk ngeen yokk ko su ko defee par exemple ministre de collectivités territorial war a mën a def lii nii nii ci wàllu euh, département bi maa ngi par exemple dans le cadre de la grève de la grève des mhm. agents des collectivités des collectivités territoriales mais ñaata yoon la député yi wax et pendant ce temps pourtant am na organ boo xamante ne mhm. institution boo xamante ne moom moo war a saytu lu mel noonu la HCCT donc bu président de la république euh, demee demee ba naan moom man na vraiment euh, bañ a jaar di déglu ñii ni mooy maanaam tas ñaari institution bi man je pense que waruloon am coow bu bëri. maanaam maanaam daal président bu ñu la déggee te ñee comme dañuy jouer mission euh, joxe avis joxe xalaat conseil. mais en réalité en réalité yow yow yaa ngi ni journaliste nga. Euh, par exemple maa ngi junj sànq grève des agents des collectivités territoriales ça fait mm. longtemps ils sont en grève je ne sais plus depuis quand depuis euh, l'ancien régime dégg nga peut-être benn résolution boo xamante ne waa ACTT ACCT ñoo ko def est-ce que dégg nga ko benn yoon hmm. ñu naan waa ACCT génn nañu wax hmm. ci affaire grève bii nii bind président de la république hmm. dégguñu ko fenn bon c' est vrai que c' est des avis mën na nekk euh, bu ñu koy joxee c' directement mais au moins war na fës quelque part ñu naan par rapport lii ni as euh, institution bi lii mooy taxawaayam. Mm-hmm. mais loolu kenn mosu leen a dégg. lu mel ni aussi CSE c' e, était la même chose. Mm-hmm. mais maintenant euh, di ne que ñoom lu ñuy def. amul njëriñ ci askan bi déedéet du ma ko wax mais ki nga xamante ne moom moo war a jëfandikoo mm-hmm. ñoom seen conseil moom moo ne moom soxlaatul ñaari institution yooyu te yoon may ko mu war ko mën a def. Mhm. loolu warul nekk problème am am na droit honorable loolu dañ leen koy nangul. Euh, bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom mooy suñuy texte euh, ni nga li ñu war a def bu ñu xoolee grève bu agent yi faree ci collectivité territoriale yi HCCT mhm. euh, la mu fa waroon def produire ay rapport dem waxtaan ak ñoom defu ko mais est-ce que jàppoon ne institution également bu war a def liggéeyam te defu ko mun nañ ko joyante te bañ ko supprimer justement jéem a xool na lañ koy améliorer oui loolu mën na nekk loolu moom waaye bu ma fàttali ni aussi mhm. ces deux institutions là dañuy nekk souvent en zone trouble tey ñu dindi leen bu subaa ñu delloowaat leen yaa ngi gis. Hmm. donc cela veut dire que perception bi day différer donc président. am na ñuy ah. rooma daal sax yéen loolu a def ah, jëlee ko fi indiwaat leneen. non xam nga loolu euh, dégg naa ko démb. gars yi gis nga Moussa Balla Fofana dégg nga lu mu wax dafa waroo ak lii nii c'est parce que les gens lui ont prêté des propos yoo xamante ne du loolu la wax. Mm, moom lu mu wax attendez euh, ñun. par rapport d'abord sa premier laaj bi. Mm-hmm. da nga ne on nous soupçonne de vouloir euh, xaw ma lan. comme ñoom li ñu waxee démb ni ki dafa am une forte pression. de la clientele politique loolu dafa mus a am la la pression de la clientèle politique dafa mus a am. Hmm. mais ñun bu doon prix clientèle politique la ñuy seet. Hmm. mais au moins dinañ doon bokk ci élection euh, ACCT bi. Hmm. lan moo ñu teree bokk en mille vingt deux et pourtant mu bëri ay collectivité yoo xamante ne waroon nañ ko mën a gagné. soo jëlee lu mel ni départ la région de la région de Ziguinchor. par exemple le PASTEF contrôle la région de Ziguinchor. kon ñun su dee dañu bëgg a ko caser ay client politique mais dinañ doon bokk élection boobu te bul fàtte aussi dañu jógee ci élection euh, locale mm-hmm. ñu gagné ay mairie yu am am am solo fii ci réew mi kon su dee ñun dañu bëgg n'est-ce pas caser une clientèle politique lan moo tax 2022 honorable mënoo leen euh, mënoo leen caser une clientèle politique Euh, tant que nekkoo leen ci boobu réew mais ku ne xam na quand même. ne non mais attendez non non non non c'est la c'est la même logique c'est la même logique attendez attendez quand on est nous on est venu nous on est venu à l'Assemblée nationale en 2022. waay euh, ñu fal ñu député. mais pendant ce temps am na ñoo xamante ne dañu bëggoon a falu député. Mm. n'est-ce pas faluñu leen. ñooñu su dee vraiment ñun dañu bëgg vraiment bokk ci ces institutions. Mm. mais c'est la même chose. Mm. ça permet aussi de caser des gens politiquement. ça permet de donner un salaire à certains. mais nous on n'a pas agi ainsi ñun dañoo ne lii soxlawuñu ko mm-hmm. n'est-ce pas ouais. et pour être cohérent mm-hmm. bu ñu nee élection au, au conseil ñun demuñu mm-hmm. comme su dee vraiment dañoo soxla baax euh, micro bi on nous dit que li ngay wax euh, am na solo mais dese naa leer nga orienté waat ko xaw ko jege tuuti. ok excusez-moi allez-y. ok allez-y continuez. que euh, li ngay wax ni ñun Euh, dëgg nañ ko démb ci biir assemblée nationale. n'est-ce pas suñu collègue député yi ñu far bennoo. ñi naan oui euh, ñun dafa am pression bi nekk suñu ginnaaw dañoo bëgg a causer euh, caser suñuy client politique. mais man je dis que c'est pas exactement cela. mais au moins ñun suñu bëggee loolu. n'est-ce pas dañuy dem peut-être que dans la TASCO comment s'appelle mettre fin à leur mandat. Ouais. c'est une possibilité pour le président de la République ba pare organiser waat élection anticipée mhm. parce que bu ñu fàtte foofu aussi il y a une forte partie c'est pas dans l'ordre de 70 ouais. de ces conseils yoo xamante le président de la République moo leen di nommé kon vous pensez que logique pour logique su dee ñun dañoo bëgg a caser hmm. euh, clientèle politique est-ce que dinañ doon xalaat vraiment tas ko mais bu ngeen ko tasee indiwaat leneen lu mel noonu mooy lan justement foofu la mooy lan yéen a xam parce que loolu moo tax ñuy wax ne peut-être Moussa Balla Fofana li mu waxee ñoom loolu lañ ci gis non Moussa Balla Fofana lu mu wax lu mu wax du ma ci sori parce que j'ai écouté hmm. mais en réalité non bala Moussa Fofana il parle de ces de ces huit pôles ñu war a créer loolu c'est dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation hmm. loolu dafa bokk n'est-ce pas dans le cadre de l'accompagnement hmm. des collectivités territoriales n'est-ce pas ñu am des organes comme ça mais ce ne sera pas des organes lourds comme à l'image du loolu même ñoom Macky saal waroon nañ ko mën a def parce que organes yooyu dañoo diis dafa diis non financière non waxuma organes yooyu de des des pôles territoriaux non non je parle du HCCT dafa diis économique dafa diis ci yow yaa ngi xool ces deux institutions nous coûtent quinze milliards euh, virgule virgule trois hmm. millions hmm. loolu boo ko multiplier sur les cinq ans de euh, Bassirou Diomaye fay mu war a coûter quelque chose de soixante seize millions virgule cinq cent millions. mais on vous a opposé la question du président de la république et du premier ministre. non attendez xam nga xam nga boo dañu. mooy dañu doon jaxase c'est raisonnable. waaw je sais que ñoom démb ñu ngi ci doon appesantir ci loolu. Mm. moo tax démb ma ne leen yéen euh, les gens parlent de choses sérieuses vous nous parlez de de sur les murs. mais on ne la caisse noire. attendez xam nga nous avons notre agenda à mettre en œuvre mooy ban en ce qui concerne euh, euh, les fonds politiques parle mm-hmm. parlez de ça ouais. mais attendez de voir euh, ce que le président de la République en fera dans ce dans mais, mais eggaguñu foofu mais mais le président de la République bu fàttee ni ki dafa ne bu mu egsee au pouvoir mm-hmm. fekkul dara ci Thiès Euh, fekkul dara ci fonds politique yooyu. mais pourtant nee na am na ku mu sauvé ci opération sur la base donc de ces fonds là fu mu ko jëlee. président de la république ko dafa ne ci fonds ci fonds politique yi la ko jëlee. non en damay laaj parce que man dëgg naa wax boobu. mais déggluwuma exactement président lu mu wax. waaw bon disons tout mais mën na am ci xaalisam Hmm. mën na am ci xaalis sax daal nit ku riche la. man dama ko jëlee wala am déet. en tout cas ni mu ko justifié ci liñ ko laaj ci contexte bi mu waxee honorable mais quand mais honorable fii mënoo fi nekk bëgg quand même jaxase xelu nit ñi li mu wax dégg nga ko. <laughs> dégguma ko. moi ah, dama voyage woon benn moment am na moment yoo xamante ne. voilà mais nekk ci àdduna bi avec le numérique avec ton téléphone di nga suivre sa président <laughs> honorable. waaw dama koy suivre te <laughs> <laughs> wala da cee bëgg ta wax. on peut en passer boo bëgg ci wax nañu dem ci leneen waaw. mais nag bon c' est l' vous a opposé ah malheureusement ni nga waxee ni honorable on a l' que amoo leen argument. non ñoom seen. argument seen argument les la république wax nañu. à plusieurs reprises sur les fonds politiques mm-hmm. mais xam nga euh, fonds politique dans un pays mmh. il faudrait ñun suñu logique bi mooy même suy am mm-hmm. il faut drastiquement ñu wàññi ko bu baax mm-hmm. ba pare encadré ko Sonko a toujours dit que benn nit ñu jégleel ko xaalis bu bëri moom kese lu ko neex def ci xaalis boobu tey n'a pas de contre à dafa ne benn nit te n'a pas de compte à mm. mais au moins su dee euh, dañ koo encadrer mm. assemblée nationale sa mun a saytu n'est-ce pas c'est l'utilisation de ces fonds politiques loolu su amee les sénégalais doivent dire que oui ça au moins c'est une rupture. mais gëm nga ne dina nangu assemblée di saytu ay fonds. Mm-hmm. di nangu di bon jàpp nga ne Ousmane Sonko dina nangu assemblée. waaw Ousmane du nit. mais rapport bi ñu gis c'est des rapports heurtés on aura non non non non c'est pas c'est pas ça, ça mais en ce qui en ce qui concerne hmm. en ce qui concerne les deniers publics xoolaa xool leen position du président Ousmane Sonko hmm. il est pour n'est-ce pas une reddition des comptes il est pour que nit ñi di ci wax bul fàtte ni ki Ousmane Sonko parmi les griefs qui lui ont été reprochés hmm. mooy par exemple l'argent du contribuable dafa bëgg ñëpp di ci wax parce que loo xamante ne askan bee ko moom il faut qu'au moins nit ñi ñu ci am droit de regard. donc là comment est-ce que vous allez dire que le président Ousmane n'acceptera pas que euh, ñu euh, saytu par exemple ce qui est des des, des fonds politiques. il n'a jamais mais est-ce que fonds yooyu. suppression. Ouais. Euh, suppre faut, faut, faut c'est de. non c'est-à-dire que de oui mais ce que. ce que l'on a souvent dit, c'est des fonds peut-être que spéciaux mm. avec un encadrement. Mmh. N'est-ce Mu am ay nit yoo xamante ne dañ leen di toftal. Mm. ñu xool l'utilisation de ces gens-là. fonds politique quand même de d'après les grands spécialistes li ñu wax. Mm. am na njëriñ. ñun boo gisee par exemple ñuy bañ di wax fonds politique. parce que loolu dañ ko jégleeloon benn nit lu ko neex def. Mm-hmm. alors ñu ñun di dit que quand on dit fonds spéciaux. ba pare mu am une équipe euh, au moins restreinte qui accompagne ça permet au moins des opérations de type secret ñu mun a tibb ci euh, fonds yooyu ñu mun a def. Euh, liggéey liggéey boobu ko fonds ko président <laughs> parce que moom il a surfé sur des expressions comme ça. oui l'essentiel est que le le contenu qui est important c'est pas le nom c'est pas l'appellation. Mm. le contenu moo am solo. le continue c'est-à-dire maanaam maanaam au lieu que mu nekk benn nit moo koy utiliser à sa guise mm. par exemple nu mu daan demee ci fonds politique yi mm. mais foofu la ñuy jël n'est-ce pas di gert des opposants mm. foofu la ñuy jël di jënd des opposants foofu la ñuy jël di déstructurer yeneen parti politique yi mais par par contre ñun bu ñu ñëwee Euh, on ne compte pas en faire la même chose voilà pourquoi président Ousmane Sonko il a toujours dit que mmh. nous avons besoin d'une opposition forte et loolu même l'opposition war na ci taxaw n'est-ce pas saluer taxawaay président euh, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye mm-hmm. parce que ñun bu ñu neexoon ñu def ni gars yi daan def mm-hmm. ñu ñëw on se tait on fait tout xoxotal gars yi wala ger leen n'est-ce pas mm-hmm. euh, déstructurer seen parti mais nous on n'est pas dans ça on dit qu'on a besoin d'une opposition forte maintenant ces fonds-là au lieu de les orienter vers euh, guerre ay parti ay ay militants politiques nous on se dit loolu da cee am mais qu'est-ce qui fait que la coalition Bokk Yaakaar est resté jusqu'ici lan la c'est parce que tout simplement chaque fin du mois les autres partis von émarger honorable li nga wax ni am nga ci preuve waaw yow yow euh, combien de fois les gens en ont parlé lan moo andi woon sax euh, l'une des rivalités entre Landing Savané et Mamadou Diop Decroix à l'époque hmm. ah, loolu loolu bokk na ci hmm. oui you comme de fois on a fait des révélations ce que les partis politiques alliés jam ci jamono euh, Abdoulaye Wade tout comme jamono Macky Sall. Mhm. les gens vont émarger les gens de la LD là. Euh, j'ai entendu quelqu'un d'entre eux, d'un peu, je ne sais pas, euh, donner des leçons à notre mouvance. moi je me suis même moom ci ban LD la bokk. ban ban LD LD debout wala LD couché. je ne sais plus parce que depuis kenn sentiru leen. Mm. ñu toog ba dernier moment nest pas ñiy génn di wax. Mm. au nom de leur euh, formation politique est-ce que mm. ces formations là même euh, honorable euh, ku ne xam na ne président de la république am na ne prérogative sukkandiku ci constitution bi soumettre un projet de loi pour examen aux députés de l'Assemblée nationale de la même manière amoon na beneen option également selon la constitution. Mm-hmm. jël projet bi soumettre ko à il a privilégié la voie de l'Assemblée nationale seeni adversaire entre guillemets Benno Bokk Yaakaar jàpp ne ci manipulation ngeen ne pour jàpp jaxase leen ak askan wi alors pourquoi la voie de l'hémicycle au lieu au lieu de celle de, du référendum euh, moi je pense que euh, nit ñi waruñu ko a gisee neneen li cër la boo xamante ne président de la république da koo jox assemblée mais est pour euh, euh, une une coalition de partie boo xamante ne fal nañ leen à 54 pour cent. Euh, des suffrages. cinq mhm. mois après ngeen demaat ci peuple boobu ñu tranché ko définitivement. référendum référendum bul fàtte ni ki référendum dafay laaj ay moyens financiers. oui amoo leen ko mais on peut dans un pays où pratiquement tout est urgence. mën nañu orienter fonds yooyu feneen. mais la démocratie a un coût honorable. oui la a un coût. mais jaar mais attention jaar assemblée nationale tamit démocratie la. mais jaar amoo majorité. non xaaral xaaral xaaral parce que. est-ce que en quelque sorte ils n'ont pas. parce que pour l'intérêt du pays. Hmm. les députés à l'assemblée nationale. war nañu xool xam da ma président Macky euh, comment s'appelle Diomaye Faye. Hmm. dafa dig askan bi ni kii bu excès pouvoir bu yàlla defee mu gagné. lii dina ko supprimer. mais xam askan Sénégal n'est-ce pas fal ko à 54 pour cent. oui mais 54 mu ñëw déglu ma dans la vivacité de la de la démocratie. Hmm. il a la possibilité tu as dit de choisir ci ñaar mais moom il a choisi peut-être que la voie. peut-être qu'il pourrait ne pas coûter beaucoup. Hmm. d'argent honorable euh, li nga wax comprendre naa ko. 54 pour cent lañ leen fal mais ces 54 pour cent au moment où nous parlons ne se reflètent pas nationale. oui amoo leen fa majorité. oui à, à l'Assemblée nationale on n'est pas majoritaire. mais, mais peut-être que nous avons pensé nous avons pensé oui. Hmm. Assemblée nationale bi dina jiital intérêt national plutôt que ay intérêt scripté personnel xaaral xaaral parce que par exemple en réalité lu xew mooy hmm. euh, ñu nekk de l'autre côté ci les deux institutions hmm. c'est les gens pratiquement de Benno Bokk Yaakaar pour l'essentiel peut-être am na fa ñoo xamante ne defuñu politique ñooñu ñoo doon wax seen collègues bu leen fàtte ni kii ñu fi nekk say seen i camarades de parti la kon à tout prix il faut nous sauver vous voyez hmm. et maintenant les gens les députés de la majorité au lieu que de regarder ce que le président de la République euh, a dit mm -hmm. et qui est qui est largement meilleur pour le peuple sénégalais parce que euh, mooy la dissolution de ces deux institutions est que xaalis boobu mu jël ko yokk ko dans le budget général euh, et prendre en charge beaucoup d'autres priorités nous sommes un pays où tout est priorité mhm. boo demee ci wàllu santé c'est des priorités nga dem ci éducation c'est des priorités mhm. nga dem sur des projets de jeunes des projets de de, de femmes tout est priorité mhm. maintenant ñooñu au lieu de voir que le président de la République parce que en réalité lu ñu def nii on n'a fait que différer euh, la dissolution mais par à ou B dina am dissolution assemblée. Euh, muy assemblée muy les deux institutions. Hmm. dina am. Ah, ah yàgg yàgg n'est-ce pas dina am xaaral xaaral maintenant maintenant au lieu au lieu que hmm. au que ñu régler la question définitivement on a fait que différer la question c'est une question hmm. c'est une question politique ñoom ils sont en train de se de de de, de battre le dernière carte c'est normal mmh. j'ai vu par exemple le, le communiqué du Parti socialiste ñoom ñu ngi wax ñu ngi exprimer leur solidarité à Aminata mbeng Ndiaye. oui n'est-ce pas. Mm -hmm. on ne parle pas de l'institution mais on parle de Aminata Mbengue Ndiaye en tant que camarade de de parti. est-ce que donc euh, la position de Aminata mbeng Ndiaye en tant que président mm-hmm. moo gën intérêt askan bi. man je pense que intérêt askan bi la ñu war a. intérêt askan mooy rationaliser les dépenses mooy rationaliser les dépenses. mais est-ce faire que... ce dégré dégraissage institutionnel. Mm-hmm. loolu la Diomaye Faye bëgg. Mm-hmm. et je sais que président wax naa la ci njëlbeen ni kii. Mm-hmm. institution yooyu euh, kii dina ñëw naan man soxlawuma ko. parce que on a connu à tout moment euh, suppression delloosi ko Sénat leneen tout ça c'est des c'est pratiquement la même institution. mm mais maintenant. bu jomaay ne loolu la bëgg mm-hmm. ñu xam ni loolu moo gën moom ci moom parce que moom mooy rendre compte moom mooy euh, présenter bilan mm-hmm. bu jomaay ne man je peux m'en passer de ça mm-hmm. et que li ma waroon a def comme xaalis ci institution yooyu ma jël ko yokk ko ci mpaj mi ma jël ko yokk ko ci budget éducation ma jël ko def ci financement jeunesse bi mais ana ci problème